Makka yaa leen gën waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen waa auditeur Al Maktoum TV fa tabarakallahu ñu ngi leen ba tey ñu ngi ci manifestation bi mbedd mu ñu defee Serigne Babacar Sy tey ñu ngi taxawaan nag sunu baay Baye Mansour Diagne nga xamante ni moom président daayira Kiram incha allah ñu bëgg a waxtaan ak moom ci bis bi bisimilah. bisimilah mina seytaani rajim bismillah rahmaani rahim. alhamdulilah rabbi alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu yéen seen liggéey bi ngeen defar bu rafet ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla yéen a xam fi ngeen bëgg a egg yàlla na yàlla yóbbu leen fa barke góor gi ñu jàkkaarlool nii muy Serigne Babacar Sy Mansour xalifa léegi nag ñun ñooy président daaytu kiram Mamadou Mansour Diagne dëkk fii si Médina daayatu kiraam nag sëñ Babacar ka samp 1927 bi ginnaaw bi fi Maodo jógee booba kenn xamul luy daayira moom moo fi njëkk a samp daayira muy seeñ sëriñ kër si mu tëjoog ñoom lu mat ñeenti at di leen formé muy waa Ndakaaru jagleel ko lébu Ndakaaru yi di leen formé ba mu pare mu ne leen yéenay samay tànk yéenay sama làmmañ yéenay samay bët fu ngeen taxaw fu fu ngeen taxaw maa fa taxaw lu ngeen wax mako wax lu ngeen xool maa ko xool loolu la sant daayatu kiraam daayatu kiram nak nek daayira bo xamne moy ndey daayira yi mooy ndey daayira yi sosa ci daayira nga dem jokk si daayatu kiram loolu lañ doon def daayira yi biñu bare ba bare seigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum mo fi indi federation parce que nee dama doon dem di waxtaan ak nit ñi di waxtaan nañ ñi ba boma posé 11 kilos ma ne nag sëñ Abdou kon nañ def fédération léegi nag boo ko bëggee wax dangay ngay woo fédération bi wax ak ñoom mu wax ak daayira yi moo moo moo yaataloolu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ak Maktoum loolu la ñu daaytu kiraam alxames bu ne day def réunion di ñaanal àddina bi di ñaanal euh, mu xàddam yi di ñaanal kilifa yi alxames bu tombewul gàmmu Tiwaawan wala gàmmu Ndar wala Tabaski wala Korité daaytu kiraam bu ne réunion loolu la loolu mooy seen liggéey fii nag li fi indi tey mooy Pape Malick si moo gént gis sëñ Babacar mu ne ale bi daal ni mu mel neexuma ale bi sax biñ ñu koy tuddee sëñ Babacar boobu Mamadou Diop mooy maire dakaar am na benn mbedd bum mu ko doon tuddee mu ñëw proposé ko sëñ Abdou sëñ mu proposé sëñ Abdou sëñ Abdou ne ko sëñ Babacar ku jubla la mbedd mu dëng kenn du ko tuddee sëñ Babacar. te mbedd moom nga ko bëgg du dafa dëng moo tax ñu indi ko fii commencé Sédhiou ba Liberté 5 amul benn jàddukaay ndax sëñ Babacar noonu la meloon yàlla mayoon ko loo xam ne nee na su ma Maodo jurul woon sax may xalifa Cheikh waaw kooku nag ku man man dugalu si moom pexe dugalu si moom moom lay neex rek mu jël la boole la si boppam kooku mooy sëriñ Babacar si waaw Pam Mamadou Mansour macha allah kon ñu bëggoon rek sa dañal kàddu lan ngay dénk ndaw ji ci bis bi incha allah. léegi damay man toujours damay wax fuma tok dina ko wax ku bokk daayira ñi ma pono ci tali bi kotal. ko taal ku bokk daayira ci bokk ci njabootu alaaji Maalik ba sëñ Babacar ñi ma def lool ñi ma xeer mu dal si auto jàmbur yàq ko koku daayira ku bokk daayira ñi ma ko doko def lool dal ndaw yi nañu dugg si daayira yi ndax ñu am formation mën a seen sëñ Cheikh Tidiane si danaan wax nite Maodo dafa def njabootam ñu nite ku nite du taal pono kon nag ndaw yi ñu ngi leen di sant loolu taal pono du taal sànni xeer bu meree damay sànni xeer su ma meree damay taal pono kooku ku nit du ko defee ku ko def rab nga man maay wax loolu ndaw yuy def loolu rab lañu ñu nit ku nit doo jël tali bi ñu defal ko ba mu baax nga teg si pono taal ko kooku ku nite doo ko def. kon nag ndaw yi ñu ngi leen di sant ngeen delloo seen xel parce que réew mi yéen ko moom réew boo ko yàqee boo ñëwee da ngay commencé à zéro te ku jàng ba université amoo xalaat boo xam ne da ngay teg pono si tali bi di ko taal kooku doo nit wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam Pape Massour Diagne jërëjëf yàlla yàlla barkeel kooku nga doon dégg moo nekk euh, président daayira Kiram. Ah, makka yaa leen gën